waa jamono fu ngeen ñuy teewloo ci biir réew mi ak ci bitim réew safoo programme yu i rajo itv euh, internet yi ànd ak ñun jamono ji ci suñu page facebook di i rajo sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax itam euh, di leen ziyaara amaat mbégte euh, gunge leen ci seen waxtaan bi ngeen taamu xam ngeen ni altine bu jot ak aljuma bu jot professeur Mbaye Thiam la ñuy dalal ci suñu plateau waxtaanee xew-xewi jamono yi professeur salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu tey am mbégte àndaat ak yow ci waxtaan bi Mohamed ñu ngi lay wax aleykum salaam di ko wax mbokk yi ñuy déglu yëpp ñuy déglu altine june ajjuma june fii ci i rajo ak seen yeneen média yi mhm. di leen ñaanal jàmm ak salaam gu sax sutura ak di ñaan semaine bi ñu sumb tey ci altine ji yàlla nañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko àggal alhamdulilahi rabbil alamin di bàyyi xel nag comme je le dis toujours nag par habitude suñu mbokk yi nekk ci bitim réew mm-hmm. nga xam ne ni may wax ñi ci ëpp sinon ñoom ñëpp fulla ak jom moo leen yóbbu loolu leen yóbbu yàlla leen ci yàlla defal lépp seen càkkute ba ñu mën a dellu ci seen i bokk. amin amin professeur euh, ñaanal leen ko bu baax ñaanal la yow itam jàmm jooju euh, saa su ne mbégte la ñuy am euh, di ànd ak yow ci waxtaan bi tey ñu ñëw ci loo xamante ni professeur mën nañ ni quotidien yu bëri moom la ñu titré muy révélation wala accusation noonu mën nañ ko tuddee noonu bi nga xamante ni maître Moussa Diop. Euh, di candidat à la candidature ci euh, présidentielle bi ñu jëm coalition ànd gor yi euh, yëkkati nekkoon également njiital société bi di dakaar Dem Dikk muy ay tuuma yoo xamante ni teg na ko ci kaw président de la république Macky Sall Mimran ak Aly Ngouille Ndiaye lu jëm ci jamono yoo xamante ni doon nañ ko exploité fii ci Sénégal tey contrat bi ñu xaatim ko ca 2016 mu yëkkati ay documents xamle ni itam. mu ngi xaar ngir ñu woolu ko mu ñëw tombé ci jamono boo xamante ni am na beneen accusation bu rëy wala bu toll bi ni mel également jëm ci euh, Ousmane Sonko laataa ñuy xuus ci biir accusation bi lan moo tax jamono ji euh, ci contexte préélectoral bu ñu nekk daanaka xeeti euh, mbir yi dañu koy nemmeeku saa su ne. waaw Mohamed nit ki de lim bëgg bu amul dayo bi ni toll na mu koy wutee du rafet. fii ñu toll tey ñi ngi jëm ci élection présidentielle sénégalais yi li ñu séentu ci ñi bëgg nekk président de la république mhm. moo di ñu wax leen buñ ko nekkee lii fi nekk li ci baax nuñ koy yokkee li ci dëng nuñ koy jubbantee mhm. te bañ koo wax rek muy wax joo xam ne jii dañuy wax dinaa dinaa dinaa dinaa mais indi ci ay firnde yu wóor loolu nag muy senegal muy meneen réew képp ku ko bëgg da ngay tëju du doon yow kot ànd ak ay boroom xam-xam dans tous les domaines de la vie ñu saytu réew mi nga bëgg a yore seet liñ fi doxal avant ngay ñëw yow seet liñ fi doxal li ci jara am ji ci jot am njariñ est-ce que doy na wala doyut nuñ koy yokkee parce que njariñ du doy li dëng nan lañ koy jubbantee ba pare nag wax leen mais nan fan ngay jëlee loo koy defee parce que alali réew mi. Mhm. ci lañ war a mën a sukkandiku pour defar réew mi alal réew mi nu mu toll. Mhm. alors ah, de xanaa programme lañ koy tuddee. programme lañ koy tuddee. Mhm. man nag gisaguma ko comme amuñu programme nag mais dañu dal comme mbay li mu yore li mu bëgg loolu la Mohamed bëgg mais day yaakaar ne pour éliminer Mohamed. doone sama programme moo gën programme moo Mohamed ndax li wax ci ci école moom fukk la wax man fukk ak juróom laa wax li wax ci mbay juróom la wax man juróom-ñeent laa wax noonu koy topp soo amul loolu nag mais dañ koy tam ñuy tamante dëmm parce que nag moom lii xanaa du tey lu ko yëg xam nga su fekkee ne yëg na ko di tax mu yëg ko mooy dafa bokkoon ci yëf yi parce que nag moom nekkoon na fi directeur général d'une société oui Dakar Dem Dikk Dakar Dem Dikk mhm. bi mu ko nekkee bokkoon na ci kàngam yi ŋànkoon seen parti ak seen coalition mais booba la yëgoon peut-être lii xanaa duma ne bi mu génnee nga xam ne amatul ci biir sauf si laa de gestion la daan ci la ko xam lu tax boobu wax ko woon. ensuite nag le timing pose problème. ah le timing pose problème. Hmm. parce que bu boo bu fekkee de léegi la ko la lu tax wax ko boobu ba tey. parce que ñun bu ñu fàttalikoo jamono yële passé ci entretien bi ñu defoon ak fi junjooñ na li ni mel. ni nag dina génne ay euh, preuve am bu jotee. bi yoon nag brandir na. ay ay documents mais booba. li taxoon mu nekk candidat moo taxoon ngeen recevoir ko. oui. c'est-à-dire c'est c'est le timing. Mhm. ou l'agenda mooy. la campagne présidentielle su ñu duggee ci campagne présidentielle bi mais tous les chats vont sortir du bois. Mhm. or ñaar yëf dong moo mën a am. yéen ñaar nee na buñ ko wooyee kii mais lu tax mu xaar ñu du ko woo ah moom gis na ñoo xam ne dañoo luubal alali réew mi am na ay preuve mais na dem fa yoon kii mais en son nom parce que moom nag avocat la. Mhm. jàng na droit lan la ko yoon may ci ñiy def lii ñun nu ñuy def ba topp mais la deuxième chose ma mhm. bi nga xam ne maa ci relève en tant que. ci li may jàngale man université. oui muy archiviste. Mhm. mais moom fi mu taxaw. mais yoon mënoon na ko faa fekk commencé koo daal ah lan moo tax. mais parce que dafa yore ay documents administratifs moom moo wax ci làmmiñam na c'est des documents confidentiels. oui génnee ko wane ko. yor na ko du gën mais la loi de 2006. Mm. sur les archives et les documents administratifs est très claire là-dessus loolu dañ koy tere. lu mu ci wax fàttali ñu ko parce que waxoon nañ si ci euh, affaire Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang si dafa wax ne document bu ñu estampillé secret mhm. top secret confidentiel yow mi mu jaar ci sa loxo wala ci jaar ci say bët ba nga fésal ko dañ lay daan daani tribunal alamaan daani tëj kaso c'est très clair donte li nga yor dëgg gu weer peng mais bu dee dëgg da koy yóbbu ci ñiy atte ne leen lii xanaa gisu leen ko ñu ne ngay ñu ne am mais doo ko lire en public devant tout le monde cest gis nga la loi nag Mohamed. Eh, man du ma mais c'est la parce que document boo xam ne dañ ko frappé d'incommunicabilité soo demee dans les archives dañuy wax les archives communicabilité et incommunicabilité incommunicabilité mooy. Mhm. yoon dafay tere nga fësal ko publiquement waaw da koo téye lire ko mais au-delà de tout cela ma conviction intime est mais loolu yëpp xam nga wax naa la fii bërki démb bi ñuy tëj mhm. ne la ubbi nañu le chapitre de la désinformation mhm. de la mal information wax naa la fii ajjuma oui wax nga ko fii we boobu man gisaguma lii man jolof laa fi kii ajjuma bi ma jullee ji jolof laa julli ji timis mais mais man wóor na ma ne c'est pas encore la première et ce sera pas dernière fii ak élection yi. Hmm. nit dina fi wax a wax a wax a wax wax ba nu yóbbu ko kaso nag mu ne non dañ maa yóbbu kaso parce que damay politique dañ dañ maa ragal su ma bokkee dama leen di kii mais dafa am loo xam ne lii ni ko loi tëggee lañ koy defee su fekkee ne nag lii mu wax am na. Hmm. mais c'est bu fekkee li mu wax euh, am na mu jëm ci euh, euh, jamaa yoo xamante ni mu ngi ci réew mi et ñi mu ci tudd di président Macky Sall Mimran mi nga xamante ni moom moo war a exploiter li ni mel ak Aly Ngouille Ndiaye. xam xam nga quand le directeur des mines. oui 2011 2019 waxee xam nga lu seen technicien je pour supposer ma man na xaw ma ko doon. Mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. mais xaw ma fu mu bokk politiquement mais wax ne période bii booba ba tey ñaari nit société lañ fi jox autorisation ñu explorer jama. Mhm. ñaari société yi bi ñu leen ko joxee wax na ne ñi ngi ci rapport bi. kuréel gi saytu les mines et les ressources naturelles génne mhm. ban saytoo dañ wax ne jamaa amu fi ah mhm. moom nag nee na jamaa am na xayrul yàlla na jamaa am Sénégal parce que bu amee nag wëtuwoo ñu jëriñ mhm. sauf nag bu ñu jëriñee ni ñu wurus bi jëriñee ak phosphate bi parce que loolu moom jëriñu waaw ah, bu fekkee ne phosphate ñun bari leen nañ ko bari lee goo xam ne gi ñëpp xam na ne am nañu te dañuy jëndi engrais ñi di ko tibbee fii di ko yóbbu di ko defe dañ ki loolu du sama baay bu baax ma daan wax ne moytu leen a for jamaa for ko ni gone di fore xeeru jamaa parce que li mu yore am na valeur mais moom xamu ko. xamu ko. Mhm. Ah, jamaa bii nag bu fekkee am na ba xayrun mais ala kulli ñaar doo ngay mën am. yéen ñaar bu fekkee ne li mu wax am na moom awokaa la man duma avocat yow doo avocat mais moom xam na koo xam ne xam nga yoon boo gisee loo xam ne ci réew mi la def xew teg ñi ko def dañoo. salfaane yoon fan ngay jaar ba yóbbu leen ci yoon. buñ ci yóbbut mais bu dem ci procureur. mais mais bii dafa ñëw parce que jamono yële passé également toog na fii ci plateau bu Ndaari digganteem ak Baba Ndiaye mooy bi dëkk bi xawee yëngatu mu dexe woon beneen révélation que ni présidence commandé woon na ay armes yoo xamante ni euh, ngir jàmmarloo yi am ak euh, yu ni la ne yor na ay preuves mais ginnaaw gi. Eh, gis nañu daanaka woy bi dafa tàbbi géej laataa ñuy xam dëgg-dëgg lan moo ci nekk bii ñëw yokk ci ci ci contexte. mais loolu mu njëkk wax bu dee dëgg mhm. la présidence de la République. c'est l'État. que am na ay foofu defoon na waa différence entre état en tant que état bu war a mën a commander ay armes am na fu mu ko jaarale mais bi présidence euh, de ci benn commande bu euh, disons plus ou moins douteuse ci la ko waxee woon xam nga xam nga Mohamed gis nga les politiciens dañu nëxal seen xel ba pare bëgg a nëxal xelu askan wi leen di déglu c'est-à-dire que gis nga l'état mhm. démembrement la boo xam ne unité personne dañ koo tas ay kuréel ku nañu dénk la leen mhm. mais dans tous les cas de figure qu'un état du Sénégal commande des armes pour défendre l'état mais cela ne nous paraît pas être une mhm. révélation comme on dit en journalisme mais nag man nag dama journaliste wax dëgg yàlla ñaareel ba mais a supposer que ce soit vrai mais quelle la gravité moi la vois pas maintenant bu fekkee ne dañoo commander ay armes wala lu man ci doon yoo xam ne niñ ko commander jubul ban ko commandé dañ cee mbuxum mbuxum moo xam ne mii en dehors de am na koo xam ne moom defar na ca boppam mais ça c'est grave. Mhm. si c'est ça exactement. si si si si c'est ça c'est grave. mais ça il faut le prouver il encore une fois. gis nga man lii. li ma ci jëkk xalaat moo di bi njëkk moo di mhm. bu fekkee ne li wax dëgg la mais dafa war a dem fa yoon nekk moom man bay Thiam du ma jàngal Moustapha Diop xamu Moussa Diop Moussa mhm. ni ñu defee yoon parce que moom ma ko gën a xam fuuf moom avocat mais nag bu fekkee ne dafa xaar ba ne lamb ji ubbi na yéen ñiy candidat présidentiel jóg leen mu jóg amul lenn lu muy tekki suñu loxo lu du jamaa am na fi Macky Sall ak Mimran ak kii séddoo nañ ko vraiment il nous prend pour autre chose que ce mhm. parce que nag loolu bu fekkee am na mais dans tous les cas de figure moom bu ko wonee bu ko wonewul bu ko waxee bu ko waxul mais askan wi tôt ou tard ko leen ko régler parce que nag ñim ci cité mais moom as réew mi jënduñu ko donnuñu ko ci ndey walla ci bay mais man loolu gëwuma ko man li wax gëwuma ko. wax gëmoo ko gëmuma ko gëmuma ko parce que. sama me paraît trop gros mais niñ ko defee ensuite man damay jàngale le document administratif mhm. man de li mu wax liiruma ko gisuma ko mais li mu liir ma dégg ko presse bi reprendre ko c'est pas de l'écriture administrative c'est pas ah, ah lan lan moo tax du nga jàpp ni du euh, écriture administrative mais le président de la République du Sénégal buy séq ak nit ak lu mu mënti séq mais lettre am moom du ko bind dafa am service buy bind lettre am naa expression yoo xam Senghor def na ci un mémento de deux cent et quelques mm-hmm. ñuy bindee lettre bu jógee ci administration jëm ci bind na ci di boo xam ne man da ni ma xam waa l' inspection générale d' état mm-hmm. mais def nañ ko ci bind nañ lu mel noonu nga xam ne sooy kii or présidence nag la jiite mm-hmm. man gis naa ci ay expression ay ay kii yoo xam ni mais duñ ko bind ci lettre bu jógee cabinet président. donc déjà loolu tey na xel. tey na xel ensuite nag mais ça me trop gros que lu toll ni mine de diamant. Mhm. mais xanaa société lañ koy jox. mais duñ ko jox nu mu tëddi Mohamed Kandji ak Mbaye Thiam ak El Hadji Ndour ak Baba Wade ñu daal ñu war a daje Paris séddoo ko. Mhm. donc ma ça me paraît gros maintenant nag. moi je dis pas que moom li wax du dëgg parce que nag man je ne suis pas le genre de type ah di di wax ne li man gëmuma ko laa wax dama ne gëmuma ne li mu wax. li mu wax ensuite tey ci foofu nga ko teg maanaam ci li ngay jàngale ci xam-xam bi. bu ñu demee ba ca kanam. Mhm. mais il peut s'avérer. man li ma gën a jàpp ci privilège moo di. Mhm. mais soit dañ koo manipuler ci document yu baaxut walla boog lu mu téyeti autre chose mais mais man gëmuma ne. Mhm. jamaa dina feeñ ci réew mi Macky Sall di bind nit di ko kii moom naan ko mon cher collaborateur. et baat tontu la doon parce que gis nañu euh, bi mbir mi génnee rek quelque temps après cellule communication bu euh, Aly Ngouille Ndiaye le candidat Aly Ngouille bi yoon. Euh, indi ab euh, démenti ci euh, li ni mel ñëw ci période bi nga xamante ni moom wax na ko ni Aly Ngouille njaay moom moo nekkoon jëwriñ gi que ni boobu jógee na fa parce que xam na ni am na changement changement bu am ci période boobee ñu koy wax waaye itam fësal ni li nga xamante ni moom moo di accusation yi maître Moussa Diop wax daanaka wax la joo xamante ni daal wax ju ju mu tegul fenn la ñoom loolu la ñu fësal. gis nga Mohamed eh, maanaam li ma la wax ajjuma mhm. mooy sa waxat fii ñu toll tey dëgg mal élection yi xam nga tey jii nag c'est une date cruciale oui parce que nag ci la gaa yi war a commencer di déposer seen candidature mhm. à la cour nga xam ne buñ àggee ci fukki fan ak juróom benn mhm. ñaar fukki fan ak juróom benn mais conseil constitutionnel war na mën a taxaw dal ne diw déposé na diw déposé na diw déposé na dal di segg dal ne diw dossier baaxul diw dossier baaxul dossier yi baax mi ngi nii ñu door a dem ci deuxième phase bi di 17 parrainage. Mhm. parce que am na ci dossier yoo xam ne dañ ko recalé avant ñu kii. la la moindre des choses yi nga xam ne moo waroon a recalé 80 pour cent des candidats mooy être tuuti avec la fiscalité. Mhm. gis nga buñ seetoon ñëpp ñu war a bokk yëpp ndax fay nañ impôt hmm. kenn du bokk wala boog ñaar doo ngay bokk wala ñett ah, parce que nag fay impo moom ñi ko fii kii li ma daan li ma daan wax quand j'étais responsable avec Ousmane Faye des revendications du SAES ci salaire yi lañ koy dagg dagg ko à la source dagg ko à la source ci salaire mais li ci des ki ensuite nag moo di yeneen mais comme période bii c'est la période cruciale d'élimination li archiviste di wax on a commencé le tri mm-hmm. de tri chez les archives mooy séparer le bon grain de l'ivraie maanaam ñi war a bokk léegi ñu xam ndax dañu bokk am na ñoo xam ne nag li ñu wax ay bëy lañu bala ñoo dee ñëpp yëg ko dinañ fi yuuxoo yuuxoo yuuxu wax fi loo xam ne lii bu yëf yi paasee ñoom ci seen bopp sax dinañ ndax ndax maa ko waxoon parce que amuñu sago parce que ñu bari dañ cee laxas loo xam ne lii ñoom ci seen bopp jàpp nañ ne bii. mooy ci la ñuy defaroo wala ci la ñuy yàqoo bu leen rëccee dootuñu kii donc tout tout est ouvert mhm. c'est la période de la mal information de la désinformation mhm. de la manipulation mhm. est-ce que euh, gouvernement bi amuñu intérêt àddu euh, ci mbir mi bu dee amul ñu wane dëgg-dëgg que ni li ni mel amul la réaction la plus logique moo doon tey tey ci suba gii altine mais procureur général woo ko procureur astafurlah procureur woo ko kii kii saytu. ne ko nag lii c'est tellement grave que dañ koy lijjanti. mu autosaisir ah mu autosaisir man loolu laa xalaat. Mhm. dama jàpp ne lu mel nii boo ko waxee parce que gis nga. gis nga bu bés bu dellu see te dara xewul. Mhm. beneen waaye dina fi génne loo xam ne lii lu te waaw maa ngi koy wax ci début bi dañu gis euh, dafa ñëw ci presque euh, benn semaine ñaar ginnaaw. bu ñu waxee li ni mel mais waaye waxoon na Ousmane Sonko dañ ko jox xaalis. mais waroon mais tey ci tey waroon na fekk ñu ñu ñu taxawal dossier bi di dajalee preuve bu fekkee ne génn na un soupçon de preuve mais ñu enquête ko saytu ko bu génnewul dara mais ñu teg ko lu ñu ko war a teg personne n'a le droit de dire rek mais Mbaye Thiam jox nañ ko vingt milliards accusation comme ça accusation gratuite oh réew mi nag loolu dafee bari léegi ba nga xam ne parce que nag nit ki nga jàkkaarloo mu bëgg li nga bëgg mais ngeen di ko wutandoo mais c'est pas une pour teg ci daram bi loo xam ne lii dara wóoru la ci parce que am na loo xam ne ku ko wax xam sax doo ko wax sakantuma ku ko xamul am na loo xam ne ku ko xam mm-hmm. doo ko wax sakantuma ku ko xamul mais et puis la politique n'autorise pas tout Mohamed la politique n'autorise pas